يا الله يا من لا إله فاستجب بجاهي سؤالي أنت الرحيم الملك القدوس لك علي الشكر والتقديس أنت السلام المؤمن المهيمن أدعو بها وإنني ci nuyoo bi suñu kilifa gi di borom penc mi di Cheikh Abdou Latif di ko ñaanal yàlla suñu borom guddal aw fanam te wéral ay cëram mu ànd ko mbooleem rakkam yépp ak mbooleem doomam yépp ak mbooleem sëtam yépp ñu dellusiwaat fii comme niñ ko baaxoo def mooy buñ màggalee ba bis ba des si mboolem sëti Cheikh Issa yëpp dajaloo ànd di sant seen maam ci liggéey bi mu liggéeyal yàlla ànd ko sëriñam ba te mooy Cheikhul Khadim ñu koy def at mu jot di ci jël thème yu am solo di ko waxtaane jullit yi man cee jariñu seen mbirum àdduna ak seen mbirum alaaxira euh, tey nag ñu andi woon benn thème wàcce ànd ak seen mbokk Abdul Ahad Ñang te mooy almasuliya mooy responsabilité nit ki li nga xam ni moom la gàddu te mu ne ci aw loosam te mu war ko mu war koo def loolu lañu war a waxtaane tey suñu mbokk abdul ustaas ahad ñang war ko waxtaane abdul ahad ñang nag Euh, niñ ko baaxoo di defee ci ab ab muxaadir te mooy na ci moom aslëf euh, mooy Cheikh Abdou Lahad mii mi ngi bàyyeekoo ci wàllu waajuram bu góor sëriñ mot ñang julit waaye waajuram bu jigéen soxna Fat Cissé soxna Faat si mooy waajuram mu jigéen mu bokk ci diggante mbusoobe ak aafe ak mbàkke loolu mooy wàllu askanam bu dee ci wàllu jaar-jaaram ci wàllum njàngam nag mi ngi jaar ci daara yi Sëriñ Saaliwu Mbàkke lépp fa la ko defee fa jànge alxuraan fa la jànge mbooleem xeeti xam-xam yépp te mooy xelkoom ak yeneen daara yi yi bi mu fa matalee jóge fa ñëw samp daara di jàngale alquran ñu bari miin ko ci dëkk bi ci wàllu daara waaye yëmu ca da ko boolewaat ak nekk ci lii mooy média yi di tasaare diine di tasaare lislaam ci rajo yi jaar na diisoo waaye jamono ji ñuy wax ak yéen mi ngi nekk al muridiya te mooy télé bi nga xam ne mooy télép euh, waaye isbu tarqiya waaye yemu ca waaye mi ngi tamit ba tey di continuer ci waar wi bay di jàngale ci école yi arabe yi te mooy benn ci école bi ñuy wax soxna Maymuna Mbàkke di forage di école Cheikh Mouhamadul Mourtada bi ci bas fi ñu gën koo xam ci bassin bi ma mi wax ak yéen foofu laa nekk may muraqibal am ba mooy surveillance générale ba moom mi nekk fa di fa jàngale ñu bokk fa nekkandoo waaye tamit mu ngi jàngale ci ma mahadu durusul islamiyya bu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma fii ci tokkoor bi kon daal yëngoom ak dalam yépp ci wàllu diine ak asaar islam ci la nekk kon moom mii nag di Serigne Abdoul Ahad Euh, moo war a ñëw tey insha allahu defal ñu waxtaan bi te mooy thème boobu ñu wax ñu fàttali rek yi nga xam ni xañ na dana fi jaar mooy buñ ubbee ba pare ba jox ko mu waxtaan ba pare dinañ fi jaarale ay taaliq mooy leeral dara euh, ci waxtaan wi fàttali ci buñ pare dinañ def euh, kàddu goo nga xam ne ci turu Serigne Moussa Ka mi nga xam mën nañ tuddee bis bi dina am ko wax ci ñoom buñ paree Serigne Chouaib bu jenn euh, di euh, ibnu Serigne Mbacke jenn ñu gën joo gën koo xam Serigne Mbacke ma moom it dana jël kàddu buñ paree euh, dina am ku wax ci turu daayira bi tamit suñ paree nag ñu doog a def atagutoo bi kon su ko defee dañuy taxawlu foofu bàyyi Serigne Abdoul Ahad mu daal di dugg ci waxtaan wi kon tafadal mashkura bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alhaadi alamin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit ñi mbokki taaliba yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu santee yàlla suñ boroom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñu ngi amaat mbégte ngir fas yéene àndaat ak yéen jotaay bii di sant bu baax di gërëm mbooloo bi nga xam ne ñoo càllaloo ci suñ maam ju baax joojee di sëriñ Aïssa ñi ngi ñi leen di sant bu baax di leen gërëm ci boole gi ñu boole ci jotaay bi di ñaan li yàlla dig mbokkam jullit mu tekkal mbokkam jullitam ci aw yiw yàlla na leen ko ci yàlla defal tañ bokk ak yéen jotaay bi yàlla na ko yàlla def muy jotaayu yiw di jotaay barke di jotaay boo xam ne suñ borom subhanahu wa taala ko dencal fi misaanil xasanaat wa ma dalika ala allahi bi aziz wa huwa ala kulli shay'in qadiru bil ijabati jadir buur la boo xam ne képp ku ko ñaan te ñaane ko nam ko war a ñaane suñ borom subhanahu wa taala mën na koo nangul yal yàlla nangul ñun ñépp di ñaan li fi génn ci ay kàddu yal na ko yàlla def muy kàddu yu génne ci gémmiñ gu jubloo jariñ ñami waxal dajeeg nopp yu jubloo jariñu ca lañ leen di wax suñu jotaayu bii nag insha allahu taala ni ko mbokk yi sàkkoo woon ci ñun ñi ngi koy jëme ci jàngat tomb bu jëm ci responsabilité arab di ko tuddee al masuliya li tax mbokk yi tànn ko nag maa ngi leen ci ndokkeel bu baax ci tànn gi ñu tànn tomb bii ci waxtu wi ñu toll nekk gu ñu nekk ay boroom yi xam-xam nekk ay gëstukat yu xereñ mooy tax saa su ne dañuy tànn tomb yu tolloo ak jamono te xam-xam bi gën a ëpp solo ci xam-xam yi mooy xam-xam boo toll ci jar jamonoom nga xam ne da ngay jël rekk jariñu ji kon tànn gi ñu tànn tomb bii maa ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax xanaa rek di sàkku ci mbokk yi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñuy teewlu jotaay bi ñu xam ne waxtaan wi léeg nga dégg ñu ne waxtaan wi nañ ko digloo xel te bañ ko digloo xol waaye waxtaan wi moom nañu ko digloo xel waaye itam nañ ko digloo xol nañu ko digloo xel mooy tax ñu mën koo wattu nañu ko digloo xol mooy tax ñu mën koo pas te bépp waxtaan woo xam ne wattu nga ko fas ko sa jëfee ko dana yomb ndax ñaar yi bu ci manqué rek mën naa gàllankoor ba doo jëfee la nga dégg soo ko wattuwul xamoo ko ba mën koo jëfe soo ko wattoo bàyyi ko fa it yóbbaale woo ko ba mën koo jëfe kon waxtaan wi nañu ko digloo xel nañu ko digloo xol ñi fi teew nag ci jotaay bi kenn ku ne ci ñun maanaam ñett façon dégg yi ñoo ci am kenn ko na xool gan dégg la yor ci ñetti dégg yi am na lu ñu tuddee dégguk yej am na lu ñu tuddee dégguk tëlëj am na lu ñuy tuddee dégguk tax xoolal sa bopp nag ñetti dégg yi ban nga ci yor dégguk yej yej mooy yomb boo dagg ci tooyaay waaye yettoo ko loo ca sotti ca kaw lay jaar jàll am na ci nit ñi ñoo xam ne seenu dégg noonu la mel dañoo dem ba seen xol yi dañ koo kaste bi Sëñ Musaa doon wax naan borom xol bu gumbaaraw borom bët yu fettagut am na ñoo xam ne alquran li muy wax ne wa ala absaarihim gishawa seen gëm-gëmi xol yi daa am lu ko couverture dafa am lu ko muur ba lépp looy wax ci yàlla ci seen nopp lay jaar jàll yàlla nañ ci yàlla musal am na ci nit ñi dégg yu mel noonu lañ yor kenn munta muusa kawaane ba wax lu dugg seen nopp kooku nag ku ci seetlu sa bopp jëm caa génn ndax nekkul la gën mu am nag te te kooku am na benn xikma boo xam ne rot la jóge ci sëñ bi ñu ne sëñ bi doon na wax ne alxikmatu tanzilu min assamay kal matar wa qalbul muriidi madar wa qalbul mariidi xajar nee wax ju am njariñ buy jóge ci yàlla day mel ne ndox ab taw xolub mooy ki bëgg yàlla day mel ne donj suuf donj suuf bu ca ndox toqee day seey dugg ci biir ki fetteerlu nag xoolam day mel ne doj doj bu ca ndox toqee ca kaw lay jaar jàll mu am ñaareelu fas yéenu dégg bu ñuy wax déggu tëlëj tëlëj mooy lu am bunt ci kaw waaye dafa am bunt ci suuf jamono ji ngay wax dana dugg ci nopp moo tane ku njëkk gi waaye moom it bu fa jógee far na cim xelam du ko yóbbaale ba mën koo jariñoo am na ci nit ñi ñoo xam ne déggu tëlëj lañ yor xatta ida xaraju qaalu lilladina utul ilma maada qaala anifa bu ñu tewee ci jotaayu xam-xam lañ fay wax lu mu am am solo bu ñu fi jógee lu ñuy wax moo lu mu doon waxati sànq foo déggee koo xam ne saa bu jógee ci ndaje naan moo lu mu doon waxati sànq déggoog tëlëj la yoon mooy day dégg waaye mënut jàpp dégg googu taxu ko am solo lool mu am nag dégg gi ñu soxla ci jotaay bi mooy déggug tax manis na ko tuddee baat mooy yomb bi nga dagg ci tooyaay waaye danga ko yett dénku googu la ñu soxla mu alladina yastamiuuna al qawla fa yattabiuuna ahsana maay bu ñu diglu wax dañu xool la ca gën a rafet ñu jël ko jariñoo ji ñu mel noonu ñoo yor dégg ji am solo jotaay bu ñu dem ñooy jariñ alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum wa imana wa ala rabbihim yatawakkaluun yàlla ci yàlla boole kon loolu la ñuy sàkku ci mbooloo ñu xam na it kiy wax waxut ak mbooloo mi génn ci boppam li may wax maa ngi yéen ñoo ci bokk yam ci lépp lu ñu war a jëfe ni ngeen ko war a jëfee noonu laa ko war a jëfee lépp lu ñu war a bàyyi ni ngeen ko war a bàyyee noonu laa ko war a bàyyee tekkiwul ne damay jëw di wax ak mbooloo bi ci génn saa bopp dama leen wutu dong ci jotali kàddu bi tomb bi nii lañ ko bëgg a tërale ci njëlbeen danañ xam le lan mooy responsabilité lan la bu nu weesoo loolu danañ dugg ci responsabilité boobu ñaata xaaj lañ koy xaaj xaaj yuy ñaata la danañ ci dugg lay lañ ci waxtu yu may suñ weesoo loolu danañ dugg ci ku wax responsabilité war wax kan mooy responsable ñooñu it bari nañ waaye danañ ca cité ñi nga xam ne saa bu ñu ko tuddee automatiquement fi nga toog ci ngay daal xam ne kii moom responsable la kooku it xaj na waxtu du ñu may ñu détaillé waaye kuñ ca tudd ginnaaw bu ñu xamee responsabilité dañuy daal di xam ne bu ko taxawee la muy jur ak bu ko taxawut la ca mën a juddoo su ko defee nag ci tomb yi buñ ko weesoo jotaay bi bala ñu koo tëj léeg waxtaan wu gudd wi dana jaxasoo ci ñi nga xam ne seen xel seenu dégg soriwut bala ñuy jeexal ñu tënk ko tënk bu gàtt ba ku fi jóge mën a wax ne nangam laa jële ca jotaay ba lii insha allahu taala fi lañ bëgg a tënk suñu kàddu li ñuy wax ci la war a jëm mbokk yi lañ mooy responsabilité masuliya mooy lu ñu gall nit te di ko xaar lu ñu gàll nit te di ko xaar te ki koy xaar faw mu teew ci kanamam mu lijjanti li mu ko gàlloon ndaxam matal na ko walla matalu moo xam ci adduna la moo xam àllaaxira la kon buñ la laajoon tey ci xamle bu gàtt lan mooy responsabilité danga naan lu ñu gàll nit te di ko xaar te ki koy xaar dana teew ci kanamam mu laaj ko ba xam li mu ko gàlloon matal na wala matalut mën na am ci àdduna su boobaa nit a koy def ak yow mën na am àllaaxira su boobaa yàllaa koy def ak yow bu àdduna bi dong nag léeg-léeg muy diis ba doo ci génn rawatina bu àllaaxira ba nag bu adduna bi dong ki lay xaar léeg nga dem ci ak moom danga nga sonn lool da nga tëdd lu yàgg lool bu gisee ne yow mi fa nga war a jaar jaroof bu àllaaxira ba moom mët wax ndax foofa moom fa la ray ba téen kon bu ne masuliya lu ñu gàll nit la kon ku dul nit génn lu dul nit génn na ku wax responsabilité kenn du ca boole animaux yi ay xar yeeg fas yi kenn gëllu leen dara ndax duñ ay mukallaf nit mooy mukallaf moo tax moom lañuy ñuy gàll responsabilité kon ci xamle boobu automatiquement loo ci war a jële liñ ci war a jële kon yow mooy képp koo xam ne nekk na responsable ci mbir na xam ne ab yanam diis na ndax ku ñuy xaar la ku ñuy xaar nag yàlla na def la mu war a def dafay neex lool fii ci adduna bi dong buñ la jiitoo loon ci am mbooloo di la ko saytuloo ba noppi ne la nag saa la liggéey bi matee da ñëw nag ñu xool ba xam li nga doon def jaar na yoon wala jaarul yoon te boo jaaree yoon dañu lay décorer soo jaarul yoon dañu lay weeje ba ñépp yëg su tekkee nit nga danga nga jox yitte loola ndax sa sa sa honneur sa sa tedd nga sa saraf moo ñu décoré la ci kanam mbooloo mi te la koy may mooy lii nga jaarale ko yoon noonu nga koy defee ci adduna nag kon wàllu yàlla gi mëtt a wax ndax fii moom même buñ la doon weeje it lu mu siiw siiw siiw àddina bépp mënuñ ko yëg fee nag moom mu yowmal xiyam kuñ fa gàll responsabilité tamatalu suñu koy weeje lu yàlla masa sàkk min aadama alayhi salaam ila axiri man wulida tàmbale ci aadam ba ku mujj judd ñéppay bokk daje ci benn barab keroog boo matalutoon da nga am gàcce gu rëy yàlla ñu ci yàlla musal moo tax kon li war a jural nit mooy saa bu ñu la gàllee te jàpp ne war nañ laa gàll nga góor góorlu ba sa responsabilité mat ndax mooy sa jàmm fii ci àdduna mooy sa jàmm al ëllëg ëllëg yomal xiyam gi géñ jëm responsabilité boobu nag lay tax nga mën cee génn yow bari na waaye tënk naa ci ñetti mbir ñetti mbir yi daal ku mu daje ci yow saa bu ñu la gàllee responsabilité ci àdduna wala alaxira su fekkee daje na ci yow mën nga cee génn su amee ndimbalu yàlla génn ci waaye nag safaan yi yépp ku mu dal ba noppi nga gàlloo responsabilité yaa ngi ci danger bu rëy ñett yi may wax képp ku ñu gàll responsabilité bu dajee ci yow mën nga cee génn ci àdduna mën nga cee génn ëllëg mal xiyaam bu amee ndimbalal yàlla waaye safaan yi nag koo ñu gàll responsabilité tam nekk ci yow yaa ngi ci danger bu rëy bi ci njëkk mooy lii tax nga mën cee génn mooy xam-xam bu am so xam-xam bu bu wér kenn da lay génn day tax day tax li ñu la gàll nga man koo doxal loo ciy déggee koo ñu gàll te xamul mi ngi ci danger ak lu lañ la gàll lu mu tuuti tuuti tuuti soo xamul yaa ngi ci ndax boo xamul da ngay tàndale te kuy tàndale bu defee njub sax da koo tànd te moom ay tàndale jëmu ci kon al ilmu naatiul waasi xam-xam bu yaatu te am njariñ te wér kéng al ilmu sahih mun te ñàkk ci kuñ gàll responsabilité saa bu ñu la gàllee dara nga war koo jiite war koo doxal te xam-xam ba mu laaj dajewul ci yow yaa ngi tënk sa bopp boo ko yëgee boo ko kon boo ci bëggee génn bi ci njëkk mooy xam-xam mun munta ñàkk bi ko ñaareel xam dong taxut a baax nanga boole jub responsabilité ku ñu ko gàll yàlla na jub waaye boo jubee de yaa ngi ci xuwa ndax ginnaaw yow la ñuy laaj mbir mi foo jëm fa mbooloo may jëm bis boo jubul sa ñàkk jub gugu du yam ci yow dong da nga juba dil ñu bëree bay ndax dañuy wax na ida zalla al aalimu zalla bi zillatihi al aalamu mbaax fépp la baax waaye ci ku ñuy roy la gën bon fépp la bon waaye ci ku ñuy roy la gën a yées lu tax baax ci baax baax baax ci ku ci ku ñuy roy mooy bu baaxee du baax baaxu boppam dong mbooloo danañ baaxee ci baaxam googu li tax bon bon rawatina ci ku ñu roy mooy bu bonee du yem ci mbonom dong waaye dana bonaale ñu bari moo tax baax fépp la baax waaye ci ku ñu roy la gën bon fépp la bon waaye ci ku ñu roy la gën a yées ndax da ci du yem moom dong kon responsabilité li tax nga génn ci bokk na ca xam-xam dong bu du jariñ bu fekkee ëntëku njub bokk na ci li tax nga mën cee génn mooy nga jub teg ci ku fees dell ak xam-xam ba noppi jubul ba noppi nekk responsable baaxul bu doonee bëndi nag bandi bu ñu jiital ci mbooloo ak bandita lay véhiculé moom tasaare xam nga ne waa ji dajeeg nit yor paakaam nar koo rey waa ne ko képp ku rey bakkan ta tey ko yàlla nee na fa jasa uho jahannama mu ne ko jahannamu la waaye du teema na la moo tax bandi piir day jàng jubbanti njuumte ji ba noppi ne ko du teema ree la jahannamu la waaye du teema ree la moo tax xam-xamub kese bu antuku njub yàlla nañ ci yàlla musal ndax seytaane lay doon loo noo koy waare looy wax xam na ko di moo tax lii tax nga mën caa génn da caa bokk mooy nga jub bi ko ñetteel mooy ci tënk ndax mënuñoo détaillé waxtu lu ñu ko may bi ko ñetteel mooy bokk na ci li tax nga mën cee génn yitte ju kawe ci yàlla alhimmatul aaliya képp koo xam ne dañu koo gàll responsabilité responsabilité pour mën cee génn yitteem ci yàlla day kawe ndax yitte bu kawee ci yàlla yàlla rek ngay bëgg kon lu lay tarfatiloo ba responsabilité doo ko jox àqam doo ko mën a gis képp ku ñu gàll dara mu mu mu luxóor ja wala mu def ca lu mu ca war ta def daa am lu taxaw ci kanam lu dul yàlla waaye yàlla moom kum taxaw ci sa kanam saa bu ñu la gàllee danga nga jaar yoon kon yitte ju kawe ci yàlla dana tax kuñ gàll dara nga jaarale ko yoon waaye saa boo jiite mbooloo nga teg ci sa kanam lu bokkut ak yàlla loole mën naa dox sa diggante ak jubal kon li war ngir nga mën cee génn bari na lool waaye jàppal ci ñett yu xam-xam bu wér kéng jub gu leer ak yitte ju kawe ci yàlla ñett yu ku ko dajale danga ci mën a génn buñ la gàllee responsabilité bu ñu ñëwee nag ci séddale yi masoliye yi mënees na ko séddale ñaari xaaj ci ñaari xaaj am na lu ñu tudde al masoliyatu ya ak lu ñu tudde al masoliyatu ad ya responsabilité boo xam ne diine ko tax a jóg ak responsabilité boo xam ne àdduna ko tax a jóg bu ma ne bu ma ne diine nag dugal na dugal na képp koo xam ne waajur nga dugal na képp koo xam ne jàngalekat nga dugal na képp koo xam ne ab sëriñ la su ma ne ne adduna dugal na képp koo xam ne dañu laa jiital ci adduna maanaam organisation yi xew ci àdduna saa bu ñu la jiitalee dara ci kanam moo nga tàmbalee ko ci daayira ba gën a tuuti dem ci fédération dem ci ab jiit njiitu réew dem ci ONG bu gën a màgg ci àdduna bi saa bu ñu la jiitalee rek xamal ne dugg na ci biir masuliyat dunya yi boobu état ngi ci biir mboolem lu rek mi ci biir kon mën nga wax ne ci biir séddale yi masuliya mën naa nekk masuliya diini ya mu digal mu dugal waajur dugal jàngalekat dugal ab sëriñ dugal borom xam-xam masuliyat dunyawiyya dugal na képp ku jiite dara ci àdduna état gën caa fés kon ci ñaari xaaj yi ñu taxaw ci tuuti bu dee yi nii bi li ci gën a fés nga tàmbalee ko ci baas bi te mooy waajur waajur am na responsabilité bu la yàlla gàll ci sa doom yi ndax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati lu lépp ñun ñëpp ya yàggees na dégg loolu képp ku jur doom yow yaay teew ci kanam yàlla ak moom yàlla laaj la la mu la gàlloon ci moom ndax def nga ko walla déet moo tax mën a jur baax na ndax yaa ko gënee ka ko waaye nag saa boo mënee jur te boole woo ca sàmm responsabilité yi ay fitna nga yóbbi sa bopp ëllëg ndax yàlla lu mu def xikma gi ci gis nga képp ku mu sàkkal waajur daa am xikma bu ci nekk muy responsabilité yàlla lu ko sob mu am yàlla sàkk na pour wan na ne bu bu sàkkaleen nit ndey ak baay daa am lu tax yàlla sàkk na lu amul nday amul baay pour wan na yàlla lu ko lu ko sob lu ko sob mu amal yàlla sàkk na lu amul nday amul baay mooy aadama aadama amul ndey amul baay yàlla ne ko kun kon yàlla sàkk na lu amul ndey amul baay yàlla sàkk na lu am ndey te amul baay muy yonent yàlla isa isa ibnu maryama la ñuy wax amul baay yàlla sàkke na ci nit sax nit ndax suñ maam aadama bi ko suñ borom sàkkee wàcce ko ci àjjana mu tëddi nelaw mu soqe ci faaram bind ci suñ maam Hawa bi mu yewoo fekk ko ci peggam ne ko maa anti loo doon mu ne ko jigéen la mu ne ko lu tax yàlla sàkk la mu ne ko li tas taskuna ilayya ngir nga dalloo ci man saa boo sonnee kon léeg nga dégg ne jigéen a jur jigéen a jur góor waaw waaye góor yi jur na jigéen di kon jurante fi nekk rek ca cosaan la ni ni ñu jigéen ñi jure noonu lañ leen jure ci njëlbeen di kon yàlla sàkke na ci nit nit yàlla sàkke na lu am nday am baay kon gis na ñetti façon sàkken wan naa sàkk lu amul nday amul baay sàkk lu am nday te amul baay sàkk ci nit nit sàkk nag lu am nday am baay li tax mu sàkk li am nday am baay mooy dafa ne baay wala mu kujur muy yaay wala baay yow dafa am responsabilité buñ la gàll ci gone gi la ci jiitu mooy gone da nga koy jàngal képp ku jur te jàngalu doomam bàyyi ko muy taxawaalu ba gone gi ne léng xamul dara nekk agressif wala mu nekkub sàcc di teg fitna société bi loo nekk nekk jaamukatu yàlla loo sell sell loo baax baax baax soo moytuwul sa doom yi dana nekk sa gàllankoor ëllëg ndax responsabilité bi ñu la gàlloon ci moom da nga ko da nga ko seetaan yomal suñ suñ jàngal nañ ci aljawar ne bis ne da nga gis ku ñëw yowmal xiyaam andi julli woor natt asaka jaamu yàlla jaamu yàlla yu bari ransale fekk juróon na doom yu bari responsabilité bi ñu jàlloon ci doomam nag sëmm ko dafa jur rek jur moom ku ne ko man fas yi sax dañuy jur fas yi sax fas boo gis am na fas wuy bàyyam waaye li séparé diggante diggante nit ak fas nag mooy responsabilité doom jàmm jàmm yàlla yu bari teg fekk daa sàggane woon responsabilité jàngalu doomam yaru ko mu ne tëll bëgg a dem doom egsi daal ni moo ma jur de moo ma waroon a jàngal te yar ma jàngalu ma yaru ma na ma fay àq ji bala moo dem te yomal xiyam amul raaxaloo de ku fa yoral nit àq bala nga buusa danga ko fay xam nga mën ngaa dem ci ndaje ndaje raaxaloo ba jàll yowmal xiyam amul raaxaloo ku fa yoreel nit àq bala ngay seqib jéego da nga koo fay tabaay ak ndey ak jëkkër ak jabar yooyu ci relation yi àdduna la wa yowmal xiyam ay jaam yu bokk daje ci kanam ki leen sàkk rek la na ma fay àq ji bala moo dem nee na mu dagg ci aw yiwam jox doomam bëgg a demaat beneen doom ex nee ma moo ma jur de te jàngalu ma yoruma na ma fay mu dagg ci wi mu fay doom jooju bëgg demaat beneen doom ex na ma fay noona noona lay jëlee aw yoom di ko fayee doom di ko fayee ay doom di ko fayee doom ba jeexal tàkk yoratu dara beneen doom egsi ne na ma fay ñu ne ko waaw moom li mu yoroon ci aw yiw fayee na ko doom yi ba jeexal tàkk mu ne ah fay de ñu ne ko lu muy def mu ne ah kon nañu ginnaaw yoreel na ma aw yiw te amul lu ma faye nakaay ma dagg ci saay bon bon lu tolloog li ma yoreel gàll ko ku ñëw mu war koo fay te amul lum ko faye mu dagg ci ay bon bonam lu tolloog la mu ko yoreel gàll ko suñ tubaab ne dañ koy gàll ba mu diis gan ñu wommat ko yóbbu ko sawara yàlla ñu ci yàlla musal lu ko fi jar waajur yaa jur comme yaa jur nag naan naan mënu mënulu ma leen dara du la ci génn de luy mën a lu ma leen dara du la ci génne de liñ naan laax bi du far waaye bàkk bi du ci jóg ndax njaboot yi moom Sëñ Tuubaa ci yenn tomb yi dañuy wax ne sédd na war a ñeent ñeent ñeent lañu ku yàlla joxu njaboot mu jub ba noppi jubal njaboot ga njaboot ga ànd ak moom ci njub ga yàlla nañu ko yàlla defal day dugg ci bu yomal xiyaamee udxulal jannata antum wa azwajukum tuhbaroon yàlla nañu ko yàlla defal ak ko xam yàlla jox na ko njaboot mu jub jubal njaboot ga njubal njaboot ga lànk bañ a jub bu ëllëgee yomal xiyaam ña bokkoon ni jëf ñooy bokk barab bu ñu nekk fii ci adduna moom ka gën a baax gën a sell gën a tedd mën naa bokk ak benn ndab ka gën a bon gën a yées gën a def lépp waaye yomal xiyaam ña bokkoon ay jëf ñooy bokk benn barab bu ñu nekk fa idaa nufiqa fi sóori fala ansaba baynahum yawma isin wala yatasaaluun kenn ku ne sa jëf kenn ku ne sa pax kon la la war ci yow defal ñoom defal rek soo ko defee sa jaan wàcc na kooku it taxu koo neex lool ndax jàll ba noppi sa njaboot gàllankoor wax dëgg yàlla neexut kenn ko ñetteel mooy ko yàlla dénk na ko njaboot dafa jub waaye daa seetaan njaboot ga jàngalu leen yaru leen kooku mooy ki ma doon wax léegi mooy dugg ci waqifahum innahum mas'ulun lijjanti na sa lépp muy jag nga bëgg a dem lala gàllankoor mu ay doom ak njaboot goo xam lañ gàllu woon ba ca mujj nag moo ci yées moom koo yàlla jox na ko njaboot jubut ak njabootam jubut yàlla ñu ci la musal muy gumba gu yombar gumba ñëwee kon waajur sàmmal sa responsabilité ngir bu ëllëgee ci kanam yàlla nga mën a am jàmm jàmmi àdduna neex na lool waaye jàmmi àllaaxira ko gën ndax moo gën a sax léeg-léeg njaboot nga bañ koo yar mu teg la fitna àdduna waaye naka mooy yomal xiyam nag garab su demee bay bay ñor jubbantil mu jub di wéy su dee mag ba am kàttan balaa jub nga damm ko xaleel su demee bay ndaw jubbantil ko wan ko njub saxal ko ci ay teggin ak yar mu màggee ko yàlla ñu ko yàlla defal nga teg ca ci responsabilité yi jàngalekat jàngalekat bu waaj yow waajur responsabilité bi ñu gàll bi ñu gàll waajur bu fekkee ci misaal rek bu waree jàngale war a yar du waajur yépp mën a jàngale du waajur yépp mën a yar foofu la foofu la njariñul ab jàngalekat di feeñ ndax jàngalekat yi ñi ñuy jàngal seeni waajur leen waroon a jàngal waraloon a yar waaye mënuñu ko kon bépp jàngalekat moo wuutu baay moo wuutu yaay ci doom kon lépp lu waroon baay waroon yaay ci doom nanga nga fexe ba waay mu jaar sa diggante ki ngay jàngal mu doon bu doon bu doon donga nga doon jàngalekat bokk na ci nga nekk nit ku responsable koo xam ne say dongo fu ñu la séenee rek def la nga bëgg kon la jiitu mooy na man li ngay def yow yow yow jàngalekat tuddoon naa ko ci yi tax nga mën cee génn ndax jàngalekat boo xam ne daa war a jàngale muy responsabilité bi jàngale te muy jàngale xamu ko lan lan lan moo ciy juddoo jàngale lu baaxut te soo jàngalee lu baaxut ña jàngal duñ xam lu baax wa man taallama bila muallimin muhaqiqin fa innahu doo wahami loolu la Sëñ Tuubaa wax xam-xam da koy jëlee ci ka ko waaye koo xam ne nii dane day jàngale te ay pexe la def ba ba sam fa muy jàngale te li muy jàngale xamu ko dëgg dëgg dëgg xamul li ci responsabilité ngay fayu weer wu jot di def ci sa poos di dundal sa njaboot te yow li nga war a joxe joxe woo ça c'est extrêmement grave lu garaaw garaaw di fayu di def ci sa poos di dundal sa njaboot te yow muqaabil bi mooy li nga war a jàngale xamoo bépp dërëm bu nit lekk te joxewul ak xam dana tee nit mën a taxaw ci jaamu yàlla ndax Saad ibn Abi Waqqaas ba mu ñaanee yonent bi sax ne ko lu ma bëgg nga ñaanam lu ma ñaan yàlla new lu ko yonent bi wax atit mata amaka takun mustajaaba daawa na nga fexe ba li ngay lekk na lew loo ñaan yàlla naw kon responsabilité bi jiit ci jàngalekat mooy mu man li muy def élève wala dongab daara day day jël day copier ci ki koy jàngal bu nekkee nit ku responsable yëmoo ci jàngal lan dong mais en même temps yaa ngi leen di formé waale ci ñuy nekk ay responsable waaye saa boo wayadee saa boo yembadee saa boo deseg mat saa bu def la nga war xamoo dara ñi ngay formé it noonu lañu ay yembar la ñu doon mënoo jàngal nit te du jëw jël ci yow jikko kon li jiitu ci jàngalekat mooy na bàyyi xel ci ne dafa war a maîtriser li muy jàngale waaye di jàngale te xamoo li ngay jàngale ña ngay jàngal dañ lay ree sax boo ko yëgee boo ko yëgul ña nga lay ree même misaal lañ ci joxe ci waa ji waa ji waa ji jàngale te ndeysaan làmmiñ wi daa léeru làmmiñ wi daa léeru buy wax buy wax buy wax kii buy wax alif alif buy wax liif yiif lay wax yiif waaw bu ne gone yi gone yi ne leen yiif nee na yi yiif mu ne déet waxuma saa yiifug bopp gi yiifug nit ñi laa wax ndeysaan daa bëgg a wax daa bëgg a wax neen alif gi nit ñi wax te mënuma ko googu laa bëgg ngeen wax waaw bu ne bu ne yiif gone yi ne yiif mu ne déet waxuma saa yiifug bopp gi yiifug nit ñi laa wax ñu ne ñu kon xamuñu yëfu nit ñi sa yëfu bopp gi lañ xam waaw nit buy jàngale day man li muy jàngale soo mënul li ngay jàngale ñi ngay formé du li ngay formé du baax kon responsabilité bi jàngale na xam li weer li ci des mooy na maandu ab jàngalekat daa war a maandu waaye su fekkee yëmoo fa nga war a yam da nga taqal ña nga bokkal métier ma dañu wax ne métier ku ca nekk yàlla na ko man waaye yàlla na yam fa mu war a yam waaye métier soo ko mënul wala boo ko mënee yëmoo fa nga war a yem da ñaawal sa ñaawal ñi nga bokkal métier bi ñëpp te nit ñi bu ñu xas du ñu yem ci ki leen tooñ laafaale ñëpp nit ñi bu ñu xas duñ yem ci ki leen dañ ciy laafaale ñëpp fi ne nit gën a xam ne té téer yi fi ne ku doon ñawlu ku doon ñawlu dara ñaw ñaw ba ñaw ba baaxul léeg-léeg bu ci nit ki jot daal téer yi nii lañ mel rek et pourtant kenn ko tooñ de kenn dong ko mooy ka koy ñawal waaye laafaale nañ ci ñëpp nit ñi noonu lañ mel bu ñu xas ku wàcc yoon duñ yem ca kaleen tooñ waaye dañu jàll ci ñëpp kon jàngalekat na maaru ginnaaw bu xamee li nga xam ne moom la war a xam jàngalekat bu maaru man liggéeyam ba noppi xam li mu war a xam ba noppi man liggéeyam responsabilité boobu mooy tax liggéey bi mën a dox ka ca des foofu mooy ab sëriñ ab sëriñ na xam ne li njëkk war ci moom muy mu xam lan la doon moom ndax sëriñ moom génnul yi may waaj wax ñetti xeet bu dee ci bu dee ci sëriñ yi reconnaître mooy sëriñ am na sayku taalim am na sayku tarbiya am na sayku tarqiya sayku taalim mooy sëriñ buy jàngale sayku tarbiya mooy sëriñ boo xam ne lañ jàngale moo koy tër bi si cër yi ba nga miin sayxu ya mooy sëriñ boo xam ne daa nekk jaamu ko ci yàlla ba boo toogee ak moom rek sa xel ci yàlla lay ñetti xeeti sëriñ yi yépp nag kenn ku ci ne am na responsabilité bu gàll ci loosam am na nag yeneen sayxu yoo xam ne suyuxu aada la mooy ku ñu tuddee sëriñ talam war a talam war a dajale dajewut ci moom mooy sëriñu aada bu dee sayxu taalim responsabilité bi ci ci wàllu jàngale mooy na xam li muy jàngale comme ni ko suñu doon jàngalee na xam li muy jàngale tama mën a jàngale te am làmmiñ wu leer boole ci am ragal yàlla gu mat ne lu muy jàngale ba egg ci xamu ko mu ne lii xaw ma ko bu wàccee lool rek bàyyi na responsabilité kon say xub taalim bi nga xam day jàngale donc mooy na xam li muy jàngale leeru làmmiñ te ci boole ci am ragal yàlla gu toll ne bu eggee ci lu xamul ne lii xaw ma ko te bañ koo baral te bañ ko baral gaa yu bari am ñoo xam dañuy baral suñu jàngale ba egsi ci loo xam bu ñu ko diibalee nga laaj leen ko dañ koy baral gaaw te am na nag ñoo xam boo baralee dañuy bàyyi ba nga baral ñu teg seen baaraam fa nga baral laaj la loola mooy waral nga mer léeg-léeg waaw nga dugg cib classe lu mel noonu di am koo xam ne day jàngale ba egsi foo xam ne mu xaw baral mu baral ko te ci biir élèves yi ñoo xam dañoo yeewu booy baral ñu xam dañoo xam da nga ko xamut fa nga barale booy daan ñu teg fa seen baram yi dañoo bëgg nga leer ñu bu ko defee problème bu rëy am waaye ana moo xaw ma suñ Cheikh na Mbacke Abdou yaakaar na su ma ji moom mi ma nett leen benn benn waaye wax naa nekk ci classe di wax gone yi aw mu naan comme ci misaal mu ne kitaabun téere ñu gone yi ne kitaabun téere ñun ñu koy waxee rek tilmisun élève mu ne tilmisun élève mu ne ustaasun comme ab ustaas ab jàngale mu ne boomun boomun bi mu ne boomun nag daa xamul li boomun di mu ne boomun gone yi ne boomun mu ne boobu <laughs> gone yi ne xam naa mu dàkk loo xam ne xaj na su ko waxee moom gone yi naa duñ ko xam ma faw lool rek la ñu wax <laughs> mu ne boomu boomul dëmb <laughs> subhanallah naka moo xaw ma naka moo xaw ma boo xamul neel xaw ma rek mu jeex takk lay sa fii xaw ma gàcca boo xamul neel xaw ma rek waaye boo forcé rek da da am gàcc ndax foo forcé am na ñoo xam ne nga forcé dañ koy xam kon seeku taalim na na mën a jàngale leeru làmmiñ am ragal yàlla gu toll ne lu mu xamul ne la xaw ma am na ñaari kilifa yoo xam ne ni biñ nekkee ci daara fal fal mbàkke jumaada laa dégg mu di ko nett li fal mbàkke jumaada laa dégg mu di ko nett li ñaari ci ci misaal rek kuy jàngale ba egg foo xam ne xamu ko mu ne xamu benn sëriñ bi ci daara sëriñ bi ji la daara daara sëriñ bi ji la ju mag daara ju mag ji kon xam nga ne du coono kenn ki moom dafa ragal yàlla ba lu mu egsi bu ko xamul ci saas laa xamu kooku moom sama turandoo la mën naa ko tudd ñoo ñoo bokk ñoo bokk turandoo mooy sëñ blaatum sëñ soeb bu lay jàngal jàngal ba egsi ci loo xam ne xamu ko danaa lii xawma ko foofu la yem xool ne noonu la daan jàngalee moom bu lay jàngal ba egsi loo xamu xawma ko lay wax mu am keneen nag koo xam ne ibnu Dureydin la ko doon jàngal di firi di firi di firi ba egsi ci xam nga ibnu Dureydin dafa jafe surtout fas wi fas wi fas wi daa jafe lool sax bi egsi ci baytu wala daxiisun waahinun wala sata mu ne walaa daxisu mu ne walaa daxisul mu ne ko mu ne ko daxis mu ne ko luy daxis mu ne ko daxis mooy daxis mu ne ah daxis mooy daxis mooy waxe lan ana xawma kon responsabilité bi sëriñ buy jàngale mooy mooy loolu bu dee sëriñ boo xam ne day tarbiya boobu nag moom laaj nay laaj sa responsabilité moo gën a diisal ndax moom da nga boole xam-xamu diine bi ba nopp jàng la nga war a jàng jàng ba ne ar yaru ba ne nër yew ba ne jaar door a nekk seexu tarbiya ndax ki ngay tarbiya li nga koy tarbiya da koy xam kon war na dégg jamono war na koo xam ñii ñëw ci moom mu war leen a tarbiya war naa xam yan jàngoro la ñor ndax kuy fajaate da nga war a xam ki wéri lan la wéri de saa boo xam ne da dugg ci tarbiya waate te li nga war a dajale dajale woo ko da nga dajale mbooloo waaye tarbiya woo kon responsabilité bu sëriñ buy dajale mbooloo war leen a tarbiya na xam ni war a xam saa bu ko xamul ma ngay wàcc yoonam te noonu la sëñ Tuubaa doon tàggatee ndax bu ma saan ñëw ci moom mbooloo yi mu leen daan boole dafa daan wut ndab tàggat ko raxas ko ba mu set la war a nekk ci moom lépp mu nekk ko mu boole kook kenn mu boole ko mu wal leen mbooloo joxe ne jox leen ci misaal mu xoromu benn séeréer xam ne séeréer day day séeréer day day ñàkk caxaan dafa ñëw aju ci sëriñ bi sëñ bi boole ko kenn ci kenn ci mag ñi ba mag moomee waxtaanee bay ñibbi bëgg a dem si séeréer bi topp ji bi mu doxee tuuti xool mag ma xool sëñ bi day mel ne dafa jokk si mbiram waaye ki ko sëñ bi booleel daa mel ne sëñ bi da koo gënal xam nga séeréer moo amul amul caaxaan day wax rek moom daa xool sëñ bi xool kam ko booleel daal di sëñ bi daal da dem ba ci ma man ma ne ko kéema kéema gënal de sëñ bi lay wax de kéema gënal de mag ma ne ko may moom ma gënal de ñu dëppaat ñu dëppaat ñëw ci moom mu ne ko lu mu ah, ba ci yoonam mu ne yaa ko gënal ma ne ko wax wax si ne ko tiim ndab li ñu sukkandoo ci mu xat mënuñoo bokk sukkandoo ndab li ma foofu ay ndab raxas leen ba mu sat tibb ci li ma tiim def ca ndab loola boole ko mboole ñu seq loolu mooy kër seex seexaan yi kon nga dégg ci ne ki ñuy jiital dafa war a doon koo xam ne li war a nekk ci moom daa war a nekk ci moom ndax Sëriñ Tuubaa nee na boo jiitee mbooloo te war a nekk yow nekku ci yow da ngay réer di réere laat te loolu responsabilité féetewu kaw kon ab sëriñ bu yaraate na xam yàqu-yàqu jamono xam fi jamono toll xam responsabilité yi nga xam ne moom la nit ñi nekk xam ndëngate gi ni ñu nekk ndax kuy fajaate médecin nga te médecin ñi muy faj daf leen a war a gën a xam seeni seeni wéré bu dee say ku takk ya dama ko jëlale kooku moom fa la ray ba téere waxatu waxatuñ xam-xam waxatuñ mën a tarbiya waaye egg na ci yàlla foo xam ne boo toogee moom benn jotaay doon sa xel ci yàlla lay nekk ku mel noonu moom it ak sell relation diggante ma boroom nay dëgër mu des nag ci tënk ginnaaw bu ñu doyloo waajur ak jàngalekat ak ab sëriñ ci responsabilité bi diine bi ñu ñëw ci responsabilité bi adduna bi tàmbalee ko ci bu fekkee ne dañu laa jiital ci ab daayira nga nekk ci responsable wala fédération wala mbootaay lu mbootaay mbootaayoo yow daal yaa nekk ci bopp ba ah na la leer nañu ci ne suñ Seex Mbàkke Gaynde Fatma bi nga xam ne bu ñuy wax organisation ak dajale mbooloo moom moo njëkk a créé li ñu tuddi daayira ndax dafa gis ne daayira dafay bennale ay doole yoo xam ne dañoo séparé wu borom xam-xam borom am-am boroom xalaat bu rafet borom yitte ji ñëw soo leen boolee te ñu liggéey njariñ mën na gaaw a feeñ moo tax mu nekkoon ay force yu ñu boole moo nekkoon daayira ci ci cosaan kon li jiitu ci responsabilité boobu ci ci jiite mbooloo mooy nga bañ koo xëcc bañ a xëcc ak jiite njiit ka koy daw koo ko yelloo waaye saa boo xamee ne yow ni suñ seex ne bokk na ci di yàq mbooloo mooy boo jiitewul doo dox bu ñu la jiitee rek nga lànk faaw ca bopp ba rek loolu it du responsabilité responsabilité mooy lan ku jiite ku jiite baax ba egg ci foo xam ne dañu lay fal bëgg laa xool yi nga lànk am na ko xam ne dañu ko fal ci bopp mbooloo mu jiite ko ñu folle ko mu lànk gars yi bàyyi ba mu tukki ñu folli ko ginnaaw mu ñëw ginnaawam di xund lu ko fi jar kon ñoo la faloon kay bi ñu la follee nangul rek mu jeex kon responsabilité ci mbooloo mooy lan nga ba a xëcc ak njiit njiit ku koy xëcc yelloo ndax njiit ki koy xëcc naru ca njub ndax responsabilité ni mu diisee ku koy xëcc ci yenn rek war na war nañoo xoolaat ba xam ku ko yelloo la ku ko yelloo la wala déet la ca desaat mooy lan mooy nanga nga fexe ba sellal li ngay ndax saa bu ñu saa bu ñu la responsabilisé ci mbooloo ngay def ay luxóor ci seen biir wala seetlaloo li ngay def ah na la leer naññ ci ne dërëm boo luubal te nit ñi xamuñu ko nit ñi ko xamul waaye yàlla xam na ko kon fépp fu nit nekk ak place bu mën a doon muy place boo xam ne place fu lekkukaayu alal la mën na faa jël alal te kenn du ko xam na leer naññ ci ne bépp dërëm boo sàkkal pexe te kenn xamu ko yàlla xam na ko fi mu ne nii sketch yi ñu faral di teg muy théâtre yi léeg nga gis ci benn gest boo xam ne nit ki li muy def waroon na cee jële bindu yu rëy am na benn sketch boo xam ne ger la doon wax ger ger la doon jàngale waa ji ñëw fop alal ji di ko ger si di ko jox fekk ki muy jar dafay liggéey ci ron régime bi état ci lay liggéey kii liggéey ci état nag souvent ci kaw fi muy liggéeyee photo président dafiy nekk bi fa waa ji fabee alali ger gi di ko ko jox bu demee bay waa ji jël ger gi tiin ti teen xool foto président bi daal di sëggar rus ndax xam na ne lii muy def day yàqal régime bi muy liggéey ma ne cey xoole kii rus aw photo di sëgg ngir alal duñ koy jox ana ki sàkk borom photo yi ki nga xam ne laa yu ki nga xam ne laa yaxfa alay shay fil addi wala fi sama kooku la waroon bàyyi mu yàlla tax na la leer nañu ci ne saa bu ñu la tegee ci barab boo xam ne barab bu stratégie la pour nga mën a sàcc ngay luubal lu xëy xëy xëy xëy yori doñ nit ñi di la ñee bari na ko borom alal jooy ñee boo xamoon li xew da ko koy yërëm ndax ku la ëppale alal te alal ji jaarul yoon moo la ëpp fitna ci kanam yàlla yàgg naa wax ba tàyyi ne ki la alal dañu koo bëgg lool di ko xëcc waaye moo gën a ëpp fitna ci kanam yàlla ki yoru dërëm bu ñëwee ñu ne borom dërëm bi mu ne oo ñu ne ko foo jële sa dërëm bi mu ne barab sàngam foo ko dugal mu ne barab sàngam dem na yoonam ki yoroo fukk nag moo fay gën a yàgg borom dërëm ba ka yorub téeméer nag moo fay gën a yàgg borom fukk wa ka yorub junni nag moo fay gën yàgg borom téeméer ba ka yorub million nag moo fay gën a yàgg borom junni ba ka yorub milliard nag moo fay gën a yàgg borom million ba multi milliardaire ba nag ñu koy topp dërëm par dërëm yàlla ñu yàlla sàng sutura kon société fédération ab kuréel saa boo nekkee ci boppam ñu responsabilisé la ba responsabilité boobu na ko sàmm te la ci gën mooy na nga xam li ngay def nga seelal teg ci nga ñëw na ci état ngir dañuy tënk état nañu xam ne moom buñ ko doon xamle dañ naan la mooy ay force yu ñu boole dajale ko teg ko ci benn loxo muy doxal li nit ñi bëgg force yi ñu doole do yu ñu boole dajale ko teg ko ci benn loxo muy doxal li nit ñi bëgg loo ci déggee su fekkee ne force yi dajale nañu waaye bennoowuñu du baax suñu bennoo te li ñuy doxal nit ñi bëgguñu ko du baax nit ñi ne li ñu bëgg mooy nga aaral leen seen seen juróom yi seen juróom yi saa bu de taxaw ci taxaw ci ci aar ko état ngay sàmm responsabilité saa bu ko violer lànk bañ bañ taxaw état la ko war def état na sàmmal nit ñi seen bakkan état na sàmmal nit ñi seen alal état na sàmmal nit ñi seen diine état na sàmmal nit ñi seen askan état na sàmmal nit seen xel kon xel diine bakkan alal ak askan juróom yi mënuñ te alkuliyatul xamsa nit ñi pour ñu am sécurité faaw nga sàmmal leen saa bu état taxawul ci sàmm yi nag wàcc na yoon ma sàmmal leen seen bakkan moo tax état dafa war a teg ay daan yu dëgër moo tax islam rek moom lañ mën a topp am am kaaraay l'islam ni mu woon bu ñu ko sàmmoon responsabilité yi des na ko doxal l'islam nee na ku rey nañu ko rey wala kum fil qisaasi xaya ku mu leer ne boo reyee ñu rey la rey yi jeex waaye biñ ko fi bàyyee nag nit di rey ba noppi di taxawaalu kenn du ko faale rey yaa ngi continuer ku sàcc ñu dagg loxoom ku mu leer nañ ci bu tax sàccee dagg loxoom sàcc gi jeex bàyyi nañ ko moo tax sàcc gi gondi sàcc gi léegi nit ñi sàccatun dañuy njéenéerlu xam nga sàcc li ko taxoon a tudd sàcc mooy li nit ki def da koy nëbbu waaye léegi nit ñi sàcc bu ñuy sàcc nëbbatul seen oto lañuy yor yor seen bal yu doy ñëw di la ko jox nga leen koy jox ñu la koy jox nga leen koy jox ñu la koy jox nga leen koy jox benn say bal jeex nga nangu wala seeni bal jeex ñu daw kon sàccatul ngir sàcc dañuy lu léegi loolu responsabilité bi état la ndax moo war a sécuriser nit ñi aaral leen seen bakkan ndax loola ba ñu koy fal budget bi ñuy woote loolu da caa bokk gérer sécurité société saa saa boo xamee nag réew mi insécurité am na fi tasaaroo nit ñi mënuñu mënuñoo jox ci dox ci kaw kaw jàmm ak salaam kenn ku ne yaa ngi kenn kenn dogale la ci sa kaw jàll waa ji nga xam ne moo tax jàmm Tuubaa gi jàmm ngi fi de yàlla na jàmm ji gën a continuer ji dox guddi dajeeg benn waay waa ji nag da koo sonal ab bandi la sonal koo sonal la sonal la sonal la sonal moom waaj maanaam waa ji muy topp moo ko sonal maanaam bandi bi ki mi topp kooka ko ko dàq ba sonn te ki muy daq yorul dara waaye da da dàq ba sonn tiim ko ngàndaay da daa mer nag ndax coono bi mu daj lépp te ba yorul dara waaw mu ne ak kii da dama war a nangam dara ak kii nan la nit di loolu mooy jéeméerlu réew mu am sécurité kenn ñu ne fa loolu kon état moo war a sàmmal nit ñi seen sécurité état it moo war a sàmmal nit ñi seen alal looloo waral organisation yi ñu tëral ko ba kenn ku ne lu mu war a jot ci alalam mooy lam liggéey sax boo xamee ne am na ñuy jël te liggéeyul état doxul liggéeyam di di di di jaar ci kaw ay pexe ngir am alal te liggéeyoo ko moo tax dem ba nga xam ne dañuy gëm alal dañu koy lijjanti waaye kenn du ko liggéey am ñuy dugg ci politique dugguñ ca ngir defar de ndax politique la ci doon cosaan baax na waaye da caa dugg ngir am alal moo tax borom xam-xam dañuy wax ne politique da nga koy teg ci ñetti anam am na lu ñu tuddee politique am na ñu tuddee politicien am na ñu tuddee politicard politique mooy homme politique mooy rajulun siyaasi koo xam daa jàng science politique ba maîtriser ko di gouverner kooka noone bu fekkee ne jubal na moo mën a jaarale yoon am ku ñu tuddee politicien politicien mooy lan al muxtarifu bi siyaas maanaam ni mu ni nit di amee métier di ci wute alal moom it noonu la amee man nit nit di amee métier di ci wute alal noona la jàppee politique muy métier mu muy wute alal waaye moom defar taxu koo jóg am koo xam ne ñu tuddee politikaar lañ ko tuddee mooy kan mooy koo xam ne moxtal la bi siyaasa maanaam daa am ay pexe yu muy pexe yi muy wute alal nag politique da caa bokk gën a bari ci réew mi ba nit ñi dañuy gëm ne boo bëggee gaaw a am alal duggal ci politique rek léegi nga yori doñ moo tax ñu bari ñu ngi ciy far dugg nag dugguñ ca ngir ngir ngir defar waaye dañ caa dugg ngir yori doñ waaye nag politique saa bu la joxee alal te alal ji nga jël mbooloo mee ko moom mu nekk alal joxe da nga ko sàcc wala da nga ko luubal da nga teew ci kanam yàlla sa alal ju da nga ko da nga ko gëqaat fayaat ko ci kanam yàlla te fay nga fa nga war a fayee yàlla na am loo loo mën a fayee kon état moo war a aaral nit ñi seen alal lu waaye mën jot ci alal maanaam lu muy jot na fekk mu liggéey waaye di fay di fayu loo xam ne liggéeyoo ko di jot loo xam ne liggéeyoo ko ci ay pexe nga ko am saa bu tasaaroo ci am réew réew ma day yàq ndax réew la moo xam ne dafay taxaw ci kaw corruption réew la moo xam ne dafay taxaw ci kaw warante ak naxante te loolu nag dafay yàqal état di di di lëndëmal ëllëg yomal xiyam ci tënk état it moo war a aaral nit ñi seen askan def organisation ne état bu jaar yoon du mayoo carte ci jigéen muy jaay boppam déedéet du may carte ci jigéen muy jaay boppam di ko may bunt bu muy jaar ngir wàcc yoon ndax askan yi dañ ko war a aar gis nga yàlla sàkk nay nit sàkk nay fas sàkk nay nag waaye ab sëy ci nit la ko yoonal yoonalu ko ci ko ci ay fas ak i nag moo tax saa su nga gis nag waxandoo xam nag wuy baayam saa su ne nga gis fa xar moo xam doo xam xar muy baayam saa su ne nga gis ginaar goo xam doo xam ginaar guy baayam lu ko waral dañoo yoonalul ab sëy ci nag yoonalul ay sëy ci xar yoonalul ci ginaar kon nit du nag du xar du ginaar nit nit la yàlla yoonal ab sëy ba ku judd ñu xam kuy baayam ku judd ñu xam kuy yaayam boo gisee aar askan baax nit bu juddee te kenn xamul kuy baayam dafa yàq ab société société boo xam ne doom yi mel ni ñoo fa nekk du am sécurité bari na koo xam ne mi ngi dund ci ci ci ci fitnal nit ñi ak taxaw ci seeni xef boo ko xoolee ba xool ko cosaan la bokk ndax danaan comme comme askan wi wutalu ma bàyyi kon kenn du fi am jàmm wax dëgg yàlla kon état wërta mayoo carte jigéen di taxawaalu di ñu andil ay doom yoo xam ne kenn du xam ko ci seen bàyyi état moo aaral moo war a aaral nit ñi seen diine respecté leen lay laïcité sax loola wax kenn ko ne ñu aaral ñu ñu ñu ñu respect respectel ko lëm gëm saa boo xamee dafa taxas wet am ku muy jël ko teg ci kaw kaja des état wàcc na yoon mu war a aaral nit ñi seen xel yi moo waral wërta war wërta maye barab yu ñuy naanee sàngara wala barab yoo xam ne day may nit ñi may trafic dorog ndax nit ñi barab bu ñuy naanee sàngara sàngara mi di tasaaroo nit ñi di ko def ci mbuus di ko jaay gone yi di ko naan mag ñi di ko naan day mujj société bu dof la ñu doon dof nag bu ñu ko waxee xañ nag ka yenuy sagaram di di di wéy kooku lañ koy jàppe waaye léeg-léeg nag nit dana nekk nit ba noppi nekk dof ndax koo xam ne société boo xam ñaari baat ñett ñu xeex ay te naan sàngara mën na yóbbu ci mu naqari del ñaari baat ñett mu xeex léeg-léeg nga gis ñaari ponkal yu xër xër kenn ko naan bay ma bay ma bay ma te boo xoolee leneen boole dara ko dara société bu ñu naanee ñoll dañu mujj dof kon loolu mënees na ko tënk ci yi nga xam ne war teefi état mu des nag ñàkk sàmm responsabilité ci tënk lañ lay jur mbokk yi gis nga waajur bi ñu waxoon ne ci responsabilité bokk saa bu sàmmul li war a sàmm bokk na ci la muy jur dans ces dans ces sociétés sàcc yi ngay gis ñuy wëreelu am nañ yaay bandi bi am nañ yaay agresseurs yi am nañ yaay baay ba war a jàngale war a yar war a jaarale yoon moo leen seetaan ba ba melu ni war a mel teg fitna seen bopp teg fitna société ba ñu dund ba kenn amul jàmm ñàkk a jàngale seen jom yar leen loolu lay jur saa bu ñu si abandonné gone rek fitna am kon kuy waajur taxawaatal bu baax ci say doom yar leen yow jàngalekat bi jàppal ne boo taxawul ci nga war a taxaw lan mooy am ay gone yoo xam ne dañu na léng te la war a nekk ci ñoom nekkul ci ñoom te dañuy faral wax ne ku ne léng la mu ne léng yàlla na baax waaye gone goo xam ne xamul tus ne léng takk ko xamul tus jur doom yu xamul tus muy kërug ñu xamul tus am na koo xam ne xamul tus ne léng takk jigéen ju xamul tus jur doom yu xamul tus muy kërug ñu xamul tus ginaaw bi laa fi dégg ñu ne koo xam ne samp na kër te mokkalul suuratul faatiha samp na kër te mokkalul suuratul faatiha am na génn góor goo xam ne maanaam buy tari faatiha ji mi ngi ci réseaux sociaux yi bu tàmbalee baati arab yi li ngay jëkk dégg moom mooy ataan li ci des lépp ay làkk la doo xam ba xam da nga koy yërëm doo xam ba xam na ngay ree nañu jàngale te jàngalekat yi bu ñu jàngalewul rek loolu mooy tasaaroo waaye itam sëriñ si nañ bàyyi xel ci na delluwaat ci daara yi tàggataat ndaw ñi li sëñ Saliou doon wax ne joxalee ma ndaw ñi ma def ci ñoom li sëñ Tuubaa doon def ci mag ñi ku sëriñ bàyyi ci xel ndax daara yi saa bu faree képp ku sëriñ képp kuy sëriñ boo xam ne jàngalul yarut sëmpul ñuy jàngale yar di leen taxaw sëriñ la boo xam wàcc na responsabilité ndax la ñuy seen li ñuy seen baatub sëriñ li ko indi woon mooy ab jàngalekat boo demee ba yitte ji mayutu la nga mën a toog di jàngale nga samp daara wut ñuy jàngale nekk te di leen taxaw bu baax a baax saa bu ñu ko defut euh, mbooloo mi du am fu ñuy tënku stabilité du am ak dal du am fu neex waay mu dugg fa lu neex mu def waaye tam nag état na xam ne bu heure sécurité nit ñi taxawu leen taxaw ci responsabilité am lay tasaaroo mooy énergie énergie mooy faw daa caaxaan lu neex waaye mu def nit ñi dañuy lijjanti seen bopp ku leen tooñ te bépp réew moo xam ne état wómmatu ko nam ko waroon mat nit ñi di lijjanti seen bopp ku sàcc ñu rey ko te sàcc la ñu doon cosaan kenn waru koo rey war a dañu war dagg loo xam waaye nit ñi dañoo mer bay fayu ci sàcc te comme dañ di sàcc te kenn mënut a fexe ba saafara seen sàcc ji ñu far sàcc leen ku sàcc rek dee la ci mujj nag mooy jëmmi responsabilité bii bu ñu ko waxee ba noppi lan lañ mën a tënke ci waxtaan bi liñ mën a jële ci waxtaan yu mbokk yi ndax bari na mbooloo moo xam ne jombul wax ju guddi yi mën na mën na leen a sonal waaye ñetti mbir a ngeen yoo xam ne bëgg nañ ku te ku doon teewlu jotaay bi boo demee nga yóbbaale ko su fekkee wax ju guddi ji sonal na la muy ñetti mbir bi ci njëkk mooy ñu xam ne sàmm responsabilité warteef la boo xam ne bu munta ñàkk la ci service boo xam ne ni ki da ko war a taxaw ci société saa boo nekkee membre ci société bi nekk te responsable sàmm responsabilité boobu mooy tax service bi nga war a liggéey ci société bi mu fay soo ko wàccee nag lépp lu yàq ci société ba société ba bokk nga ci buntu yam jaare kooku mooy benn ñaareel ba mooy bokk na ci li nga war a yóbbaale bu doon ko nag responsabilité ak sàmm gañ ko war a sàmm intérêt yi dañu koy sànq ndax kenn ku ne intérêt personnel am lay xool du xool intérêt mbooloo mi te bépp société boo xam ne kenn ku ne sa intérêt bopp ngay xool xoolu intérêt mbooloo mi société lay doon boo xam ne bopp sa bopp égoïsme la ñuy doxe say mbir na jag sama yoon nekkut kuy dee yaa xam te loolu baaxut kon paw responsable yi ñu sàmm ko mooy tax intérêt yi ñu man ko jokkalante ba ca teg war mooy lan yittewoo priorité bi nga xam moo gàllu ci biir responsabilité loola yàllaa ko gàll bépp nit boo xam ne dañ ko dañ dañ dañ ko dañ man a dañ laa jiital ci dara saa boo nee nit ko xam dañ laa jiital ci dara njiit yàllaa koy sàkk kon sa borom bu la sàkkee teg la fi mu la teg rikk waaye na nga doxal li nga war a doxal yii ñu doon waxtaane yépp nag am na benn ndénkaan bu jógee ci sëñ bi boo xam ne tënk na ko ndénkaan boobu ku jëlewul dara ci jotaay bi ngir say say say nopp daa neexut ci li ma doon wax jëlal boog ndénkaan bi yóbbaale ko ndénkaan bi dafa wax ne diis na gan fatt na taraj fees na dell lépp lu ñu doon waxtaane mi ngi ci biir ndénkaan bi te képp ku ko sàmm da nga sàmm responsabilité dañu wax ne sëriñ bi nee na nit ki amul lu may ñeent jëmmam ay bokkam alalam ak jëfam nit ki amul lu may ñeent jëmmam ay bokkam alalam ak jëfam nit ki amul lu may ñeent jëmmam ay bokkam alalam ak jëfam mu nit ki saabu faatoo ñàkk na jëmmam lu fa des ay bokkam ak alalam ak jëfam mu ne bokk yi saa buñ ko waajalee ba mu jekk raxas ba mu set takk ba mu dëgër wàqi ba mu xóot fas yéene ko jébbal boromam ñàkk nay bokkam loo bëgg-bëgg nit doo ko bëgg mukk ba tëddee ko ci biir bàmmeel donte sa baay la donte sa yaay la donte sa soxna la ku mën a doon ci yow boo tëdd biir bàmmeel jote nga bàyyi ko mu tëdd fa lu fa des alalam ak jëfam mu ne alal ji buy dugg ci biir bàmmeel bi alal ji danaan ko man duma dugg fii damay dellu ci bokk yi ñu doon ma ñàkk na alalam kon ñàkk na jëmmam ca bam faatoo ñàkk nay bokkam ca ñàkk nay bokkam ca bañ ko waajale ba noppi ñàkk na alalam ca ba muy dugg ci biir bàmmeel lu fa des jëfam nee na foofu la jëf jiy waxanteeg moom lu ko jëf ji wax nee na jëf ji danaan ko ah yaa ma jëfoon de su dee baax yaa ma jëfoon bu dee ab safaanin yaa ma jëfoon nee na moo tax jëf mat a sellal ndax mooy dëkkandoo bi mujjee yow si bi bàmmeel foofu la responsabilité feeñee loolu sëñ Saliou Mbacke doon jëmal ca wax ja ne nit ki amul lu may ñaari biir biiru boppam ak biiru bàmmeelam biiru boppam bu mu ko yitteel ndax li ci war a nekk yàllaa ko ciy def biiru bàmmeelam na yitteem ndax lu mu fa deful du ko fa fekk mbokk yi nañu bàyyi xel ne jamono saa bu yàqoo jamono saa bu tasaaroo ba wax na jamono ji daa daa daa nangam nangam na aybu zamanana wala aybu fii naa wa ma li zamanina siwaa siwaana dañ fi nekk di sikkal jamono waaye jamono sikkul ñun ñoo sikk li may mujjee nag jotaay bi mooy ñu xam ne ñépp a war a defar ñépp a war a yoon responsabilité ñépp a war a taxaw waaye kilifa diine moo jaraw kilifa diine soo melee nii Sëñ Tuubaa wax adduna bi mën naa jàkk sëñ bi day nee nañ mag ñi mas nañu ñëw ci moom ne ko dañoo bëgg a dox sa diggante tubaab bi ba tubaab bi lu muy wax mu wax ko ñun yow nga nekk sag jaamu yàlla xoolal la sëñ bi tontu yow kilifa diine gi dañoo bëgg a dox sa diggante tubaab bi ba tubaab bi lu mu wax mu wax ko ñun yow nga nekk ci sa jaamu yàlla sëriñ bi ne leen ñu de kenn doyuma sama diggante ñoom ndax képp ku dox sama diggante ak ñoom benn ñu xëpp la ba ragal loola wala ñu xëpp la ba xemmem loola te ñun amuñu lu ñu ragal amuñu lu ñu xemmem ak a xóot diglu bu baax wax ji diglu ko bu baax nañu ko digloo xol te digloo ko xel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 bépp sëriñ boo xam daa yor xoqal bu kaw mu nekk melokaanam sëriñ lay doon boo xam ne ndawal àdduna da koy ragal di yagari yagari ci ginnaawam du yagari yagari ci ginnaaw kenn lan mooy melokaanu xoqa xoqal bu kaw ñu ci Sëriñ Tuubaa di tagg mooy saxaabatul kiram waaye saxaabatul kiram yooyu mu ciy tagg daf doon wax mag ñi ne leen jël leen saxaaba yi muy nekk seen roykaay ndox ñooy seen bàyyi ci diine kon képp ku dib sëriñ melokaan yi may waaj a jox jël ci xool ci sa bopp soo ci nekkee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yaay dëgg dëgg sëriñ yaay kilifa diine bokk na ci melokaan yi nga xam ne sëñ Tuubaa joxe na ko dañuy jaay ay caaxaan jënde ko tudd yàlla mi leen sàkk nelaw guddi dañ koy jaay jënde ko di yàlla seen borom ba bët set baaxoo fudulan bi dikrillaahi xaaliqihim fan naw ma fil layli baaxoo bil munaajaati dañu doon ñoo xam ne bu waxtu guddi masam jot nga bànnee ko nelaw ci sa kaw lal ba bët set ñoom ña ngay bànnee ko jaamu seen borom ba bët set taj fol madajia fii laylin junubuhumoo naasina salma wa layla bil busharati dañu doon ñoo xam ne xam-xam mooy nekk seen man mandarga seen jikko mooy lewet duñ toog ci garam place di wax lu ñor lu ñurut al ilmu siimatuhum wal ilmu daydanuhum doona daawa inkaaril maqaamaati dañu doon ñoo xam ne dañuy bëgg yàlla yàlla rek la ñu bëgg bu dégg ba cëkk di andi seen biir te yàlla tax di waxante dëgg seen biir te yàlla tax di labirin seen biir te yàlla tax wa rufqatun wa hiya ixwanun lahum himamun maal wafaay bi sidqin fil uxuwaati dañu doon ñoo xam ne dañuy ragal yàlla ci njëlbeen ragal yàlla ci mujj ragal yàlla ci zahir ragal yàlla ci batin it fi l bidayati xawfu danbi yasjuruhum wa fi nihayaati ijlalul jalalaati dañu doon ñoo xam ne dañu xam yoonu yàlla tënk ci seen bopp guddeeg bëccëg ca la ñu dox duñ ko wàcc bu mukk arkaanu bayti jamii lqawmi arbaatun biha yuassasu bunyaanul wilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun wa uslatun an suyuqin bil isharati ku leen bëgg yàlla bëgg la ku leen sopp yàlla leen jox addi yàlla bëgg la tuuba li abdin muridin sadiqin wa bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaat asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Abdoulaye Niang waxtaan bi wax dëgg yàlla kawe na jot mboolem liñ séntu woon ci yow am na lu ko féete kaw xam naa damay maa ngi koy wax léegi ni ko yow ku lay taaliqal fooy jaar ndax waxtaan nga waxtaan wi pare talxiis ko kon daanaka ni jërëtul talxiis maanaam jërëtul tënk eh, kon xam naa li ci am solo rek mooy eh, ñu ñaan yàlla defal ñu ak dégg ak topp ba li nga xam ni waxtaan na ko fii soññee ko fi ñu man cee jariñu te mu bañ a jaar ci noppi jàll ndax lim doon waxtaane lu am solo la mooy wàllu masuliya mooy responsabilité te mooy tem bu te muy tem boo nga xam ne bu ñëw jamono la muy loo nga xam it eh, munta ñàkk ndax kenn ku ci nekk am nga lu gàllu ci sa mbagg te mu war la ni mu ko waxee te nga war koo def loolu nag xam ko dafa baax loolu nag bokk na ci lim wax ci li jiitu mooy xam ndax loolu fii ñu toog tey ci penc yi di waxtaan borom penc yi dañoo xamoon responsabilité bi ñu yan woon moo tax mbooloo mu leen toppoon ñu xam fa leen jëmale doon leen teg ci sharia nga xam dañ doon dañ daan doxee ñaari tànk mooy sharia ju mat sëkk waaye xaqiqa ju mat sëkk waaye nañu jëlee ko ci ki nga xam ni moom ci moom lañ rootee te mooy cheikhul xadim kon mu mel ni kon sëñ Tuubaa lépp amit ya jiital xam ba pare doog a doog jëfe waaye eh, moo tax it damay wax ni mag ñooñu toppoon sëñ Tuubaa ñëpp sëñ Tuubaa defar leen kenn ku ci nekk ci wàllu àll wa fees nga dell ci xalu xam-xam ci fànn yépp eh, kon am na leneen loo nga xam ni moo leen indi woon ci sëñ Tuubaa mooy kenn ku ne am na lu dese woon tuuti sa diggante sa borom te sëñ tubaa dafa ñëw ngir mottali lépp loo nga xam dafa manqué woon looloo ko yóbbu ba gànnaar moo ko jaarale fépp ba tax mu nekk sababu xaybati an allah arada an an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi daw mi bokk na ci li nga xam ni moo ko tax a jóg ci liggéey bi nga xam ne tey bis bi ñu passé muy wàllu sant gi ñu ko la yàlla bokk na ci dem ji demoon ci géej gi mooy loolu ñu wax noonu mooy yàlla am mu am ci yàlla daraja waaye nekk kuy ràmm aw xeetam waaye nekkit di xaadim rasul ci sax di liggéey yonte bi sallallahu sax dakk kon mu mel ni euh, bi sëñ Abdoulaye waxee rek nii lépp ci xam-xam tege dañuy delluwaat ci euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk tey di fi Serigne Touba bi mu toogee li njëkk a woote mooy nit ñi delluwaat. ci àlluwa yi ñu delluwaat ci daara yi delluwaat ci jàng ndax euh, man toog naa miraaran ay yoon yoon yoo xam ni moom waxal boppam ni lépp mi ngi jege ci tegu tegu ci xam-xam nee na amul dara dara lu ma dox loo xam ni tegewut ci ab xam-xam kon bu delloo si waatee euh, yëf yi euh, orienté waat nit ñi fa nga xam ni fa la fa la jóge woon kon it ñu ñaanal ko yàlla jàppale ko ci loolu moo xam ni mu ngi koy naal naal yooyu mu naal suñu borom eggale ko waaye wax na ci li ñu tuddee al istiqaama te mooy jub jub moom xam nañ ni mun ta ñàkk nit ki lu man di am te jubut amul dara dañuy wax ni Cheikh Mamadou Moustapha daan wax naan Moustapha de moom juba ko doy waaye istiqaama nag ci la nit yàlla yëpp tegoon seen tànk te ku ne xam na ni lépp loo am rek ñun ñëpp xam nañu lépp loo am lu dul jub juba ko gën kon istiqaama mun ta ñàkk waaye tamit ki nga xam dafa yole responsabilité ta ñàkk tamit li ñu tuddee alhimma al aaliya bi mu wax te mu lu am solo te alhimma aaliya mooy li nga xam ni eh, moo waral sëñ Tuba radiallahu anhu biñ ko eh, rasulullah saa dikkee ca Mbàkke Kajoor biñ ko waxee ni ko rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat loolu himma jooju moo manqué woon naam fekkoon na fi daara yi fekkoon na fi boroom xam-xam yi alxuraan nu lañ ko daan def xam-xam nu lañ ko daan def waaye am na lu desoon te mooy alhimma al aaliya te mooy yittewoo sa boroom képp te loolu sëñ jubaa nag euh, ñooñu la ànd ak mag ñooñu nag xamal leen ni léegi nag dëgg la njàng mii dañut waaye njàngu kese dong nag am na leen lu ci war doole kuwaat te loolu mooy alhimma ci la euh, ci ngay soobu ànd ak moom nag mu lay tarbiya di la yar say cër di la xiifloo di la marloo di la tarqiya tasfiya la yooyu yëpp ba tey ci ci ci loolu la la loolu la ñëw kon su ko defee sëñ Abdoulahat sant nañ ko bu baax dafa war a am fu mu war a demaat benn jataay moo tax sant nañ ko bu baax a baax ci waxtaan wi wax dëgg yàlla mat na sëkk tey it kawe na sunu suñu njort kon su ko defee jar ñuy guddal dañuy wax ni rek dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy sëriñ Khadim Kebe dañu wax ni ñëw na tey daa war a barkeelu ñu ni léegi nañ ko jox doon 15 minutes mu barkeelu ko feeñal ci yéeneem ñu continué waat ndax am na délégation yoo xam ñu fi ñu fi ñëw yu ñu war a présenté ak suyuux yi fi nekk euh, kon soo ko defee sëriñ Abdul sëriñ Xaadim Kebe dan lay bàyyi nga continuer bu ko defee bu paree rek ñu wéyaat li nga xam ne mu des ci programme bi